sant yàlla bu baax di julli si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di ndokkeel réew mi yëpp ci weer wu tedd wi jeex ci bis bu màgg bi di bisoo it di ci ñaanal réew mi yëpp jàmm di ñaanit jaamu yàlla ñi ci jaamu yàlla yàlla nañ ko suñu borom nangul jaare fa jéggal ñu suñuy bàkkaar jaaree fa def ndam ci réew mi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi balu ak ñëpp di ndokkeel imam ci kàddu yu tedd yi mu yëkkati jëmee ko ci réew mi ñu jàpp ci li ëpp solo mooy nit ñi bàyyi ñaxtu te jébbal seen bopp seen boroom ngir xaar yiw ci moom dégg nañu kàddu imam dégg nañu jàmm ji mu ñaan ci réew mi jàmm jooju la ñëpp war a dox la ñëpp war a taxaw la ñëpp war a dëkkee saa su ne tey nag ma ñëw fii ma yoroo ci ci HLM jullee fii ci wetu imaam mu ñaanal ñu yàlla ñëpp xam nañu ne at ak li ci ginnaaw maa ngi doon wër ci kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp di waxtaan ak ñoom ngir ñu ñu yaatal jàmm jooju ñaan ko ngir mu law fépp ci réew mi loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin jur na résultat yu rëy a rëy ci réew mi ba mu waral ne si sama wàllu engagement citoyen maa ngi leen di yëgal ne lancé na coalition bu mag bu ma tuddee naataange askan wi jëm ci législative yi ñu jëm ci 31 juillet 2022 ak sénégalais yu bëri maa ngi ciy woo sénégalais yëpp ndax bëgg na 31 euh, juillet 2022 ñu am majorité assemblée nationale daal di former gouvernement bu bees ngir tàbbal liggéey bu bees tàkk ci réew mi bu gaaw gaaw gaaw ngir njëriñu askan bi maa ngi leen di wax ne man seen doom pare na ngir conduire changement yu rëy yi am ci réew mi ak samay nit te di ci tàllal loxo ñëpp di ñaan yàlla yàlla yokk jàmm ci réew mi yàlla def def def xéewal ci réew mi yàlla wàcce fi naataange gu rëy ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla imam yàlla dëgëral ko yàlla wéral ko yàlla sàmm ko ndax taxawaayam am na solo lool ci biir réew mi am na solo ci gox yi ñu dëkkee te law na ci biir njaboot gi ba jàmm mi ngi law fépp ci biir réew mi alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. daanu rek comme ni ko waxee si wàllu jàmm. gis que ne jamono yi ñu toll adduna bi yëpp. Mhm. maanaam situation bi nga xam ne ñu nekk fii si Ukraine. Mhm. dafa li nga xam ne bii mooy euh, atmosphère géopolitique bi mu dugal nag rek yow tey si wàllu paix tey ban lecture la ñu mën a defar. waaw lecture bi ma ci mën a def mooy li imam wax ju léegi.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 lii yonent bi jàngale ci ay ay hadis ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàmm dootul jóge mukk ci àdduna bi ndax ndax préceptu islam jàmm la jàmm jooju nag soo xoolee tey jii su fekkee ni solidarité àdduna bi def nañ ko nañ ko war a defee ni ko yonent bi diglee jàmm dana am fépp ci àdduna bi te loolu la ñuy ñaan aussi loolu la imaam wax ci loolu la ñuy feggoo ak moom incha allah jërëjëf jërë ngeen jëf